addina asalaamaaleykum àddina bi Gambia nuyu naa képp ko seetaan Sahel Network TV ak mboolem fi nga mën a nekk ziyaare naa la sargal naa la di la bëggee di la ñaanal jàmm ñu dégg jàmm am jàmm rek fii la Sahel Network TV business profile lañ wax looy yëngu dafa nekk programme boo xamante ne dafa fi toogal ñëpp képp koo xam ne moo ngi yëngu ci dara rek bëgg nañ nga ñëw fi waxtaan ak ñu wax ñu si lan ngay yëngu ñu amaat nag. gan boo xamante ne moom nag du lu ma mën a wax ne gan la sax parce que moom yàgg na ci biir kër gi dañ koy bàyyi rek mu nuyoo rek wax leen moom mooy kan laata ñu dugg ci waxtaan bi nuyu neen la Salif. fay nañ la nuyoo bu baax a baax ci loo nekk. maa ngi nii rek sant yàlla bàyyi ngeen jàmm baax a baax. kay maa ngi si jàmm. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen kontaane bu baax a baax a baax man maa fi teewal teewal respecté gépp. kay fas yéene waxante waxtaan ak yéen ci yu baax a baax. macha allah man moom loolu namoon naa ko ci yow parce que depuis boobu ba léegi mun nañoo fexe ba jàkkaarloo xëy nag ñu woo leen rek ñoom tamit ñu dellu si waat rek ci biir kër gi bëgg a gën a yaatal waxtaan bi rek ñu waxtaanee ya waa Gora's Boutique comme que góor a ma mënul ñëw moo tax mu yebal Saliou te xam naa ne man tax moom laa miin moom waxtaana dama koy faral di namm moom dama xiifoon na wax waaye tey moom xam naa ne añ moom jàll na macha allah ndéko añ na ñaari def naa ko ah, maa ngi <laughs> mu ne ndékki na añ na kon nag Saliou dañ lay laaj rek euh, ci wàllum Gourous Boutique lan moo leen inspire comme lan moo leen motiver ba ngeen start euh, def business bi di jaay tissu waaw góor benn ndaw la rek. ndaw boo xam ne Sénégal la jógee ñëw gëm boppam ñëw teg ci taabal di daw di tooba tooba. di gëm jàppatee bàyyi ànd ak ay rakam ànd ak ay soxnaam. ba lépp fu mu fi egg te yàlla eggale ko fa. loolu kese la loolu rek moo ko may li mu am lépp. façon bi nag fépp ci àdduna bi fépp loo xam ne mën na fa amee lu rafet dafaa dem. indi ko Gambie pour bégal doomu Gambie oh, moo ko tax a jóg. Mhm. loolu moom leer na ñëpp léegi parce que xam naa ne Gouras moom macha allah te commencement bi moom ne ruxu disket la ko ñëpp gën a xamee. dafay toog rek nga jënd tusi rek mu jox la <laughs> parfum. su boobaa mu gën a neex moom la dafa bëgg di yàgg di. bégal nit ñi dafa góor dafa xam lu baax. na di ko ah, dox góor ci lu baax lay dox. Mhm. di noonu góor dafa nekk nit koo xam ne maanaam dafa bëgg lu baax. Mhm. goro day dem ba Corée sax. Mhm. xool pièce bu gën a baax pièce bu gën a qualité. goros buti da nga fay dugg pièce boo xam ne man bu la neexoon nga dem Sénégal wala fépp foo mën a dem ci àdduna bi. Mhm. doo ko gis. Mhm. góor ay pièces am da koy ooda. gis nga euh, dañoo war a xàmmee qualité bi ak quantité. duñ benn góor a qualité rek lay jaay. du jaay lu dul ka lu qualité. lépp loo bëgg ci xeet bu baax baax rek. ñëwal góor ak bitik. amna na ñoo xam dañuy ñew dañuy ñew gores boutique de la lax de bo lay wax fo lay jëndé piis bi dañu Sénégal la Sénégal lay ko jëndé <laughs> te fekk na jéggu jéeguñ féri dé barki yalla yàlla jéeguñ féeri bi rek la ñu yem wala tiba garage ci mool <laughs> mu nga comme xam nga ne kon góor ci walum ñu baax la muy ñengo moo tax ñeneen ñi xam nga rek Gambien bi mom dafa ñëmé lu baax moo tax léegi soo waxee ñu naan ay Sénégal la fekk wo gores fi lay ko jëndé non góoras lañ koy jëndé nag parce que xam nga tax seen Gambien yo bëgg lu baax mhm. parce que dañoo bëgg sincèrement mhm. damay remercier suñu client Gambie yépp mhm. ñu ñu xam mhm. ku ñu xamul de mën nga ñëw ki way bës bo ñu xasse ba xam bo ñu xasse ba ñam do dem fenen parce que lu bax lañuy jaay lu qualité la ñuy jaay ca boo ñëwee dinañ la waxtaanal. dinañ la fool dinañ la reetaanal. man moo xam naa ci dara man. bu baax a baax. <laughs> man dama ñëwoon interview far nañu tegal ma toogu di ma waxtaanal. macha la teraanga la comme koo xamante ne foofu laa dëkk nag macha allah dañ lay yaatal. teraanga la pare di la waxtaanal xet bu neex bu fa nekk nag boo woo gën a. macha noonu la noonu la yéenay borom. <laughs> loolu moom neex na léegi ñu ñu laaj la Gora depuis kañ la commencé di def business bi. Gora mu ngi commencé 80 93. 93 la commencé 93 93 macha allah la mhm. commencé business boobu ndaw la. Mhm. gëm booba ñëw Gambie. Mhm. xos ba am lu ko am yàlla may gën moom ànd ak jabaram. lépp lu mu am rek macha allah am jabar ju baax. soxna su baax boo ko amee moom lépp loo bëgg a def ci lu baax rek. macha allah yàlla dana ci jàppal. ñu nekk ay rakam. mu ñu mu tàggat ci liggéey bañ na bu bu lay jël bu lay liggéey bu la ñëw ci la xam lu mu lay njëkk wax na nga fexé bu benn client bu mer mhm. mo tax ci ñu lañ dox bo ñu féké place ba dañuy ree kaf mhm. di wo ñëpp nak na nañu visiter Gora's boutique ah. am nañ benn tipa garage ah. am nañ benn bañu na ñëw fofu la mbur mi di xoyam xoyamee <laughs> faali bi ngoy ngoy ku la ca faali ngoy barke Serigne Sali ah kay mu mom toro ndam du koy faté moom dama dëgg mom la moy bonom jamono lolu <laughs> mom neex na ah, parce que xamné ne ne ci bégal nit ñi rek la lay ne wa xamna na ne ñoo ngi sentu feneen de bu dul Banjul li Tiba Gare dina jall wala mu dem wa inshallah allah allah ñu ngi leen di waajal surprise ahan kay goor mu ngi waajal surprise yu bes tek fi ci Gambia bëgg indil Gambia yoo xam ne kenn du ko gis wax day yàq sax ñu bàyyi non wa léegi man luma lay laaj moy lan mo tax goor a Gambia bu ko ko def business place am mënon na dem benen dekk way mu ne Gambia la moy fété xam nga goor Mm-hmm. gis nga nit dëkk bu la defalee teraanga. Uh-huh. da nga koy delloo teraangaam. Mm-hmm. teraanga teraanga koy góor mais bañ na ba léegi ay doom yëpp ñu bëri doom yëpp fi lañ juddoo. fi uh-huh. la koy defee. Mm-hmm. màggal fi la koy defee. gàmm fi la koy defee. every mu ngi Sénégal fi la gàmm gi la yeewoo. yëpp fi la koy defee. kon kooku. amul. non desalatuñu dara kay ñu ngi koy desalatuñu. da nga koy wax Sénégal sax mu la man bàyyi leen ma seen ma gérer waa Gambie rek. man Gambien laa sax léegi loolu la may wax. moom Gambien la. mu ngoog te xam naa ne yow mi sax yow moo. waaw man Gambien la man moom man man man ay Gambien lañ man moom bañ naa kon loolu neex na Saliou waaye ñuy lëtte parce que jaaykat bu nekk tamit daf day am ay difficultés yoo xamante ne tam daf ko dee fee si wàllum liggéeyam léegi yéen ma laaj leen ñun waa Goros Bitik lan ngeen nekk di jànkuwanteel ñun daal amuñu pa am nañ tolof tolof amuñu ko parce que xam nga rek yaa ngi ñu sant yàlla bu baax a baax mais xam nga leen lañu war nit ñi war a xam quoi mm-hmm. qualité ak quantité dañ ko war a xam bu baax xam lu mm-hmm. baax ak lu bon mm-hmm. parce que pis goras bi tek man nga faa ñëw jënd benn til nga gis beneen til ci marché bi nga yaakaar ne til yëpp so du benn non non it no sem qualité bi duñ benn tamit texte bi tamit duñ benn góor bitik amul benn difficulté ñu eh. ngi mm-hmm. sant yalla baax vraiment alhamdullah gambi mom ma sha mm-hmm. mm-hmm. allah amuñu fi problème mom ñu ci dund alhamdullah rabbi alamin bu baax baax ma sha allah wa léegi ma laaj leen lan ngeen ñoo waajal événement bi di ñoo di tabaski bi parce que wax lañu yow nag nga nag nag nak nak nak lu laaj lu ma sawar a tontu parce que ñun ñu ngi waaj loo xam pun mhm. ba bu ñu koy pour l' instant am na lu ñuy jot am na ñuy loo xam ne lu ñu am place baax la. la. Oh. yu baax. yi xeet. lu ci mel ni. indi nañ til. indi nañ euh, noblesse. indi nañ jasner. noblesse laa dégg de. noblesse. boobu de maa koy dégg de bu ko nit ñi xamé do xamee. xol xool Jasner Kotoba. ëpp na. Oh. <laughs> ma sha allah man suma koy wax sama xol bi day sedd tellement que da nga ciy yëg sama bopp. kay non lolu inshallah nako na ñëpp xam. Mhm. buñ ko nit ñi xamé do dootuñu xol Jasner. Mhm. du moromu Jasner ndax moo ko coton mhm. bu baax am na fii goori nak mom ma ngi leen xaar. filafilé laa filafilé tey fii c'est ça fii super sang. kay ak lay. ku ci ñëw daal ñëw na ko ku fa ku bëgg baax rek. ñëwal gu respecté. da nga ñëw ñu ñëwal la ko ñaari baat. te man sax lu ma neex ci yéen yéen góor ñi rek ah yéen fayaawu leen yéen pour lan ngeen a ñëwal góor ñi nga xamante ne dañoo ñëw rek yëkkati boo xam ne pare na pour lan nag yokk leen si jàpp yi jigéen dañoo mën a créer góor taamu ji taamu jigéen am góor da ko amul góor bu wàccee liggéey day dem ñëw jël jënd sol la xam xamul dem ñëw jigéen nag am na temps dem xool lu rafet ñëw tànn jënd mhm. moo tax ñu bëgg leen a jàppale ñëwal leen teg mhm. ku ñëw ñu boole tànn loolu nice mixé oh, man kay bëgg ñu ñëw ngeen doxoon su fa ngeen ñëw xool mix yi non dañoo ñëw mix yoo xam ne ah, illa illa illa illa ba ci fan yi wàcc na leen suprême xam nga suprême non boobu maa ngi ko dégg moom sa jaax suprême amul fenn fu du góor a góoras kóoras kese la am kessé kessé kessé amul fenen foofu la yëpp xaar vraiment tellement kam mbase bobu ken xamu ko amul Sénégal gambi góoram mo fu njëkk kam suprême tellement que qualité ah, na. am ba paré coton na. ba paré boko solé yow sa bop sa da ngay minni da ngay nek à l'aise quoi da ngay yek sa bop da ngay fil sa bop bu baaxa baaxa ba nañ ñëw doxon su góoras bitik ñu xol yu baax yu am góor am. xol qualité bi wax day yàq oh, fi tool bàyyi na ba ñu ngi leen di ñu ngi leen waajal loo xam ne oh, oh. ku ñëw góoras boutique loolu surtout ku ñëw góoras boutique rek mm. dina xam ne lépp la kon suma comme ko faral di defee rek nañ doxantu ndànk dem jàkkaarloo waa góoras xam ne buñ demee buñ ñu tegalee siis moom dañuy waxtaan ñuy jënd rek te duñ xam sax la ñuy jënd la lu ma ci gën a dinañ la waxtaanal dinañ la teral la. Mhm. waxtaan la boo ñemee dootoo dem feneen. non non ñun. waaw boo ñemee dootoo dem feneen. ndax boo ñëwee lépp loo soxla ci baax baax am nañ ko. kay macha allah. Mhm. am na ñoo xam nag dañ li ma la bëgg am fu ma la bëgg a leeral. parce que dañ naan góor dafa loolu dañoo xamul. non mais bu ñëwee góor bi di qualité boo jëlee qualité nga xam ne du ñu benn. Pombardier ak Angleterre du ñu benn lan moo leen boole. <laughs> terre bi duñ benn góor tamit noonu la mel ak ñoom. du benn sax. gis nga Amérique. Mm-hmm. est-ce que morom moo Mauritanie la. duñ benn. góor noonu la mel ak ñoom ku mu ci jàpp dina la xir gi dina la dal fenn sax goor mom comme sañseel la ñu xamna lepp lépp la parce que xamna la man moom damay dugg Instagram gis yi ngeen fay sànni ci lo ci xamul dem Facebook ba machallah amna ño xamne ci goor bu buti lañu wut ci goor lañu wuté wute tourné déedéet kay da ngay dugg nga ne la da ak ki moy goor ñu ne la waaw ci fekk duñu goor goor ñaari place la am Banjul ak Tipagaras jeex na ca logo bi green and white la waaw waaw sunu logo fogo ko dem green and white. bu dul green and white. Mm-hmm. du góor la gu Goros Boutique. am na ñoo xam ne dañuy pirate nag naa ñu góor a fii mu waxee ñu ne fii mooy Goros Boutique. du moom de. rek la du moom de. benn kese la Décathlon Plaza ak si mall bi. te muy dëgg wasalaam naa la. <laughs> kon loolu neex na léegi Saliou ma lay laaj ñan nga mën a wax ne comme ñoo ñoo nekk seen special client ñoo xamante ne kii soo ko gisee lu sol la nga xam ne kii góoras la ñëwee lii. maanaam daanaka ñu ngay lim kàmb yëpp. góor lañuy ñuy ñëw. Oh. ndaanaan bo déggee gambi bu ñu bëgg lu bax rek góor lañu même Sénégal ni seen artiste ni bu ñëwé bu ñëwé gambi ni faaw ñu góoros dé ma sa xam dara xam nga ci dara <laughs> bañ na ba wa Youssou Ndour biñ fi ñëwé ñoom ñu may xëyee mhm. ca samedi ba fa ñu def stade ñoom ñu góoros fajateel la ñu góor pour ndugg seen jëk pour ndugal seen jabaré yi nga xam né góor dañ def lu bax di dox lu bax mhm. di dox ci cas social góor lu xam ci lu bax mu koy def da fay delo ñu jukal njukkal Gambie billaahi góor a dafay delloon di ko ah, parce que dafa bëgg gàmmee mhm. góor a mu ngi am ay xeetu baax baax yoo xam ne xamuñu lu commencé bibles mhm. ay arlas mhm. ay broderie de suisse ay kii yoo xam ne mus doo ko gis fenn góor a tilam boo ko gisee bu la neexee nga jënd tilam nga yóbbu Sénégal wala nga yóbbu góor a ordre lay liggéeyee tilam bu nekk ordre la koy defee doo sol piis bi góor ñu naan la fii góor ak piis nga gis ko ci mbedd mi lambar lambari amul fenn loo bëgg ci xeetu baax baax ñëwul. bitiku ndaanaan la maa ci xam dara. déggoo ma de. mooy bitiku ndimbal jabot. ku bëgg lu baax. Mhm. ak bëgg lu am classe. Mhm. ñëwul góor a jaaral góor a boo jaaree ca xolal ñëpp la fi nekkal. ndeysaan. ñëpp la fi nekkal. muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw. képp ku lu waaye bàyyi sax ngóoraa waay yor am na di nga am. ndeysaan ndax am nga coton. Mhm. coton yoo xam ne meere nag amal naa la ay coton yoo xam ne <laughs> coton yi nooy gum nooy. Oh. billaay ay coton brodé yoo xam ndeysaan kon gis nga leer na comme a dem daago kan xam nga ne goor a seeratul seeratul ah bay leen ni wax góor a dafa cher xam nga ñoom ñu ko wax xam nga gis loo xamul da ngay wax loolu da nga naan góor a dafa seer mais góor a seerul góor a boo ñëwee ci bitig bi rek wala loo bëgg am na fa ah, kay loo bëgg mm-hmm. lu sa poche toolu rek mm-hmm. am na lu fa lu sol noonu man la ma ci gën a leex wa waxtaan bi man waxtaan baa ma see gën a gis nga loolu allah xam nga dafa nekk loo xam ne ñun formation lañ ciy def mm. góor du n'importe qui ñun ay rakam du n'importe qui lay jël dugal ci butikam parce que boo ñëwee dalay formation nan ngay wax ak nit ñi parce que nit ñi tamit comportement bu solo dafa am solo ci loolu laa bëgg a ñëw sax góor ñan ñaata ñaata employés la am ñoo xamante ne ñooy liggéey ak moom nekk ndaw góor bëri na. Mhm. bëri na am na ay emploi yoo xam ni ay Gambien lañ ay Sénégalais lañ ñoo xam ne ay bokkut ak ñun ñu ay rakam. teewul teewul lu mu ñu war a ñun lépp mu ngi koy def mhm. macha allah mention spéciale pour ñoom. Mhm. maanaam liggéey la moom la ñuy tàggat. gëm suñu gëm leen seen bopp xam leen ku ngeen doon. fi ngeen war a yem ngeen yem fa. bu leen dugg ci ñu war a dugg. macha allah ci loolu lañ ci loolu lañ jàggat ci loolu lañ tàggat ci moom macha allah ba pare. mooy loolu soxnaam tamit nekk ku baax. muy mm-hmm. ko jàmbaro. kooku maanaam fu fu maanaam bu ñëwee fu góor gis nga jigéen. Ah, bu ñëwee baax na ah, ah. jigéen mooy defar góor. Mm-hmm. ka jaar dafa yaatal. Mm-hmm. boole ñëpp uuf. parce que boo duggee kër amul ma sàmba amul ma demba ñëpp la jël yaatal leen. amul ñëpp ñëpp laax la doon mu doon benn mhm. gis am na ko jigéen bu baax bu nekk ci côté mhm. kooku tamit dañ koy amal mention spéciale mhm. moom fa ñëw jigéen bu fa ñëw moom dina la tànnal loo xam ne moom macha allah mention spéciale sama yaay jooju ah, maa ngi <laughs> na comme que agsi na léegi si cafaandaw bi te naa ne waxtaan mi neex na ba bëgguma sax mu yem fi léegi Saliou dama da nga xelal ñi nga xamante ne ñooy ndawi réew mi rek muy Sénégal muy Gambia muy fépp fu xamante ne ndaw mën na fay nekk rek nga xelalal ma ko ba pare ñu tàggatoo ak ñiy seetaan Sahel Network TV xam nga fii moom macha allah. waaw euh, man samay waay lañ man moom maa leen bëggal sama bopp. ndeysaan ni ngay gisee noonu maa leen bëggal sama bopp. Mhm. waaw ndaw yi lu ma leen wax nag euh, mooy ndaw bu nekk na gëm boppam xam mhm. mooy lan. Mhm. ca borom kawar gu ñu ñàkkul dara. non non gis nga nit ki li nga gëm. nekk ci rek. bul mës a bul musul ba parce que yaa ngi ci buntu àdduna gis nga nit kii balaa ngay du li nga war a am di ko am mais fulla ak fayda mm-hmm. ndax ndaw mooy ndaw magu ëllëg mm-hmm. nañ gëm suñu bopp xam nga ku ñu doon mm-hmm. ba pare respecté suñu réew bëgg suñu réew uh-huh. tout sauf ça bëgg suñu réew xam ne lu tubaab bi am ñun mën nañ koo am mais nañu respecté suñu bopp ñu yàlla jiital ñu nangu ko ba pare nekk ci lu ñu war a nekk yaa may dégg loolu kese amul leneen gëm sa bopp muy Sénégal muy Ghana muy Gambie muy mm-hmm. dëkk bu mën a doon. Mm-hmm. ndaw yi nañ gëm seen bopp. Mm-hmm. man loolaa lay wax de. ni nga gisee ne da ngay fighting. fighting ba am li nga am. góor a dafa fighting de. ni nga ko gisee noonu la. Ah, non am góor am na ñoo xam dañu ñëw place naan est-ce que muy a moom mooy loolu. liggéey la xam is down to art na ah. ñoo xam ne da nga ñëw ne la kii mooy góor a nga ne déedéet ndax dafa wàcce boppam suufeel boppam ku ñëw mu ah, faw yow ree ak amul ñëpp li may wax daal mooy leen ku ñëwul góoras boutique tabaski bi. doo xam lu ci góoras sax perte nga. perte nga lu bëri sax la waaj ñu waajal. eh mhm. Illaah. ndeysaan mu léegi nag. lu ñu doxandul place ba nga ñëw nga xool bagage yi. <laughs> ñuy faral di tëjee nag mooy danga may léebal wala nga wéyal ma wala nga bàyyee ma gaay ñi nga xamante ne ñooy seetaan léegi yow moo ma cee may waaw lu ma leen di may daal mooy lenn. Mm. xam man wooy dama koo mënut. waaye nag dinaa jëm di dara tuuti. Oh. goras ya bah ah. gorah ah. ya goreh ah. gorah ngobah udah gelubah setel gorah atau goreh ak tabe ak ndaanaanu mu ngoog Saliou nag loolu la tëjee mu ngoog léegi nag Saliou dañuy tàggatoo rek nga jox gaay euh, seen Facebook page ak euh, Instagram ak nomba boo xamante ne képp ku bëgg a ñëw Goras rek dina tapé nomba boobu noonu rek waaw waaw waaw boo am nañ fa Goras moo fa ne Goras boutique mhm. boo am nañ fa Goras boutique numéro yaa nga foofu mhm. spécial boo fa demee di nga gis lépp numéro yëpp nga fa macha allah boo demee di ko gis mhm. green and white mooy logo Goras boutique <laughs> green dama la koy bantul green and white. waa leer na nag léegi suma gars yi nee na green ak white mooy logo góor. foo ko gisee foofu la. thank you so much for watching suma gars yi nag di yaare naa leen lu bëree bëri képp koy fancy Sahel Network TV rek di seetaan programme yi yëngu ziyaare naa la sargal naa la lu baree baree bëri thank you so much for watching bu leen fàtte nag suma mbokk yi partage leen ngeen joxe seen thumbs up like si bu leen ko fàtte and then you ah, leave your war def loolu nag waaw waaw looloo ma fi teg xam nga rek pour <laughs>